والقلم وما يسطرون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته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 ñu gën maa xam ci Xaadim Sarr maa ngi dëkk Touba Guy Mbind. sëñ Abdou Xaadim Sarr lu la andi fii. waaw li ma fen di mooy euh, dawra bi nga xam ne yaatal mbindum alxuraan C3S mi ngi ko doon def ci gën a yokk xam-xamu sëriñ daara yi ndax jàng ba am xam-xam waaye doo mën a matale lépp ndax wa fawqa kulli ziin min alim xam-xam moom euh, saa yoo demee ba tollu fii rek am na ko tàmbalee foofu jëm kaw rawatina lu mel ne xam-xamu alxuraan nga xam ne day fànn yu bare bare bari fànn gi ñu doon jàngal nag mu ngi jëm ci wàllu uh, rasmu wa maanaam ci wàllu bind ak maas te yaakaar naa ne kenn ku ne xam nga ne diir bi gàtt na waaye nag xame nañ ci lu bare bare bari. Uh, sëñ Abdou Khadim Sarr ndax yow da ngay bind. waaw man bindkat laa bokk naa ci ñi nga xam ne dañuy dundal alxuraan donte nag bokkuma woon ci concours bi. mas ngaa bind. waaw man mas na ma bind ndax bind naa juróom-ñetti kaamil. juróom bi nga ñëwee ci dawra bi noo gisee li nga daan bind ak li nga jàngee waaw bi ma ñëwee tamit am na ci yoo xam ne gis naa ko yu ma xamoon am na ci yoo xam ne xaw ma ko woon kon li muy teg tegtale mooy dawra bi xam-xam génn na ci ndax li ñu doon jàngal xam-xam la ndax léeg-léeg daa nga bind mini moo xam ne buñ la laajoon foo ko teg doo ko mën a xam. waaye fi mu ne ku ñu laaj danga mën a dellu ci mawridu samaan danga nga mën a mën a dellu ci aljahuru manazam nga xam ne yu bare bare bare bari borom xam-xam yi jàngal nañ ñu ko mu leer nañ. sëñ Abdou Khadim Sarr foo daan jóge ak yow ban heure nga daan ñëw. waa man maa ngi daan jógee eh, Guy Mbind Kër Sëñ Ñaan maanaam hôpitalu Kër Sëñ Ñaan foofu laa daan jóge en même temps itam 9h la ñu waxoon moom la ñuy dugg waaye 9h saa yu jote man fii damay fekk ci classe bi mu fekk ma ma ñëw ci kër gi maanaam naa ñi fiy jiitu daal waaye man mosuma tardé. kon gis nga ne daal dawra bi yàqalu la benn temps te dooleeku nga fi ci xam-xam. waaw dooleeku naa ci xam-xam maag samay moroom te itam wax dëgg yàlla yàqalu ma benn temps nag ndax su fekkonte ne ñëwuma ci dawra bi ci téléphone bi dong laay nekk di whatsapp ak lu ne ma di ko def kon yaakaar naa ne dawra bii li ñuy ñaan yàlla daal mooy ñu koy faral di amal ndax xam-xam bu baree bare bari wax dëgg yàlla amee nañ ko fi kon nag dañuy ñaan rek xam-xam moom du doy waaye dañuy ñaan daal lii muy faral di am daal. jërëjëf kon sëñ bi. waaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi yow noo man Mouhamadul Mountakha Mbaye foo bàyyi ko Touba Ndamaat lan moo la andi waaw dama gis ne eh, waa waa waa c 3 dañoo taxawal benn dawra boo xam dafa jëm si ni jàngale bind ak maas loolu moomu ci loolu moo la fendi mas ngaa bind waaw bind naa waaw noo gisee dawra bi ak bi nga ñëwee waaw dawra bi am na solo lool lool lool eh, ah, gis naa ne lu bari liñ ma daan jàngal si jamono ba may beqi ak ba may bind kaamil ba ma ñëwee fii la comme daal laa xam fan la cosaanoo fan la bàyyee bàyyeekoo gis naa ne am na njariñ lool lool lool waaw ñun kay lenn rek la ñuy jooy mi gàtt gi waaye bu gënoon a yaatu tamit dina gën a am solo lool. léegi yow noo gisee li nga daan bind bu njëkk ak jamono bi nga ñëwee ci dawra bi maanaam noo noo gisee diggante la nga daan bind avant ngay ñëw ci takk takwin bi ak après bi nga ñëwee ci takwin bi li fi fekk ñu koy jàngalee ndax am na ak wute wala. waaw gis naa nag dina am ak wóote am na loo xam ne dama ko daan bind te teguma ko woon si xam-xam xëy na damaa ñëw rek kon mbeq yi bind kaamil di bindee noonu waaye ba mu ñëwee fii gis naa ne li ma daan bind am na loo xam ne ginnaaw bu ma jugee fii gëm naa ne dina am ak soppeeku ci sama bind lool lool lool sax ndax loo xam ne bind da koy bañ ak bind ba bëgg na ko am na lu ma si xamoon waaye ba ma ñëwee si dawra bi gis naa ne dolleeku na lool sax waaw dolleeku na dolleeku gu jéggi defee sax. ñaata fan nga fi def. waaw yaakaar naa juróom-ñaari fan lañ fi def euh, dimanche gi jàll la la tàmbali woon. ba tey jii nii. ban heure nga daan xëy ak ban heure nga daan wàcc. waaw 9h la ñuy 9h30 la dugg ba 1h la ñuy wàcc. kon gis nga ne daal mbir mi warees na koo mën a yeggale wala li nga ci amagun doy na. waaw xam nga lu baax moom ah du doy waaye lii moom bëgg nañ mu dolleeku lool lool sax lu mu dolleeku rek xeeb nañ liñ ci am moom daanaka dañu bañ a wax ne xeeb nañ ko waaye bu dollee ko moom dinañ jël gis nañ ni ay bunt yu bëri commencé naa feeñ ci wàllum bind te xam-xam bi dama naan naan mën lii day mel ni dañ kaay yeexe daal waaye xëy na bu buñ ko gënoon gaawee moom dina am solo lool te buñ ko gënee yaatal tamit gëm naa ne dina am solo lool. daal gis nga ne lii mënta ñàkk ci ku bëgg a bind alxuraan. déedéet lu mënta ñàkk la waxuma sax ku koo xam ne day bind waaye bépp siñ daara rek lii da laa yitteel yitteel na la képp koo xam ne yor nga daara yor ay xale di leen jàngal jàpp naa ne mbir mi di nga ko yittewoo lool sax. jërëjëf waaw jërëjëf. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa Mbeng. maa ngi bàyyi ko Touba Ndamaatu. may jàngale alxuraan. waaw may alxuraan. damaa yor alxuraan. ndax yow bindkat. waaw bindkat laa. ci mos waaw concours bi nag yàlla dogal na ne mosuma koo mosuma cee bokk. bind nga kaamil. waaw bind naa kaamil waaw. noo gisee li nga daan bind bi nga ñëwee fii jàngalekat yi li ñuy jàngale noo gisee diggante boobu. bi ma euh, teewee ci bërëb bi gis naa formateur yi xam-xam biñ ñuy jox muy jëm ci wàllu mbind ak nañ daan bindee mel na ni ñun dañoo njëkkee woon euh, xam-xam bi ci wàll njëkki ñu njëkk woon a am pratique bi te amuñ woon théorie bi. kon lu bëree bëri amoon nañ ko waaye bu ñuy formé jox ñu euh, pratique bi euh, euh, théorie bi gis nañ ni am nañoo ak safaanoo lu bëree bëri ci ay mbindin yu teeg yi ñuy jox waaye gis nañu nag xam-xam bu am solo la yittewoo nañ ko lool xam-xam bu ñu manqué woon la kon nag gis nga ne daal comité scientifique bi nga xam ne ñoo gàddu concours bi gis nga ne daal comme ñoom maxaayir yi ñu teg maanaam yi nga xam ne ci lañ sukkandiku di ci àttee waate kon gis nga ne loolu daal lu wér la lu tegu ci xam maxaayir yu ama am solo la lu xam-xame la ndax gis nañ ni lii ah njuumte yi ñu daan gaar yu bare bare bari ñàkkoon a jëfandikoo yii la yii nag mbégte yi niñ ci amee nag day dolli ko saa su ne te it dañu nañu may ñu am encourage ngir topp dawra yi waaye gës yaatal suñu gësu ci fànn gi gis nañu solo si bari na lool lool di euh, jaajëfal bu baax a baax nag mboolem ñi euh, ŋànk liggéey bi di mboolem bànqaas yi ci nekk yëpp ñu ngi leen di jaajëfal di leen wax ni ñoo ngi liggéey alxuraan te liggéey bi ñu koy liggéeyal nag suñu borom subhaanahu wa taala dina leen fay ngeen gi fay am nañ mbégte loolu nag am nañ mbégte ci bokk gi ñu ko bokk ak euh, mbokki daara yëpp euh, di gis ni daal lii xam-xam la boo xam ne suñu xam-xam la ñun waa daara bokkuñ ko kenn te incha allahu rabbi lépp lu mu laaj lépp lu mu yittewoo ñun dinañ ko ci def incha allahu rabbi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Seydou Khoudous. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara ak leen dokkeel bu baax wax ne tey lañ doon tëj euh, dawra bi nga xam ne doon nañ ko amal fii ci Touba Sourah daara Serigne Moustapha Seck ñi ko doon taxawee di yaatal mbindum alxuraan comité scientifique bi ñoo ñëwoon doon euh, formé euh, jàngalekat alxuraan yi ci naka la ñuy bindee alxuraan ak ci naka lañ koy maasee ngir ñu gën koo mën a xam ngir atte yi ñu leen atte ñi nga xam ne dañuy faral di bokk ci konkur bi mu mën a leer nañ ci ñoom ndax jubluwaay bi mooy dañuy gis koo xam ne mbindam mën naa rafet lool waaye dañuy gis ne da euh, day day maanaam tegu ci rasmu day day des lool ci loolu nag ci lañ doon formé sëriñ daara yi di leen ko gën a leeral ak di leen ci gën a dolli ngir bëgg lool tamit buñ demee ñu def ko ab yóbbal ba bu ëllëgee ku bokk ci konkur bi euh, buñ la àttee nga xam liñ la àttee fan lañ ko teg ndax loolu dafa mel ne gis nañ ne xam-xam boobu euh, xaw daa nuru jege sori lool. daa nuru lu yomb loo lu yomb lool te jafe lool kon loolu euh, congrès bi bàyyi na ko xel bu baax moo tax ñuy amal dawra yu mel nii nuru na ne nag dawra bi xaw naa gàtt xëy na li ko waral mooy ku ne xam na dañ koo tënkoon ci fet ngir mën a am sëñ daara bi bu baax ci waxtu ngir muy ñëw ci heure di mën a dellu ci heure euh, ñu ko doon def diggante 9h ba 13h nga xam ne sëñ daara bi bu ñëwee dana mën a concentré wu bu baax ci ndarsu yi nga xam ne moom lañ fiy jàngalee. looloo taxoon ñu def ko ci gi def ko une semaine tàmbali woon ko dimaas be mu jeex tey ci ajjuma ji xëy na dañ ko bëggoon a jeexal sax ci samedi ji waaye dañoo gis ne suba bisub jàng la ñu bari ci sëñ daara yi weddi nañ ba war a tàmbalee jàng looloo waral ñu yemale ko tey tey lañ doon def cérémonie bi euh, di sant nag mbooleem média yi nga xam ne ñëw nañ fi ak ñi nga xam ne doon nañu ànd ak ñoom ci liggéey bi euh, ak daal mbooleem ñi nga xam ne ku ne jàpp na ci ak noo ci mën a jàppee di sant it Serigne Fallou Seck nga xam ne mooy borom barab bi di sant sëñ Daam mi nga xam ne mooy coordonnateur yaatal mbindum alxuraan nga xam ne lu bari ci liggéey bi moom moo koy coordonné moo nekk fa mu nekk man may ndawam nekkal ko fii nekk ci diggante kiy jàng ak kiy jàngale nga xam ne seen diggante lépp luñ soxla rek incha allahu rabbi ñun ci la taxaw nekk ndawal sëñ Fallou sekk it fii ci daara ji di ko jàppale ci liggéey bi kon daal loolu moo nekkoo liggéey bi yéen it ñu di leen sant bu baax yéen ñi xam ne yéenay jàlle liggéey bi di ko gën a yaatal darsu buñ fi jàng rek boo demee ci internet bi di nga ko fekk di nga ko fekk ci yaatal mbindum alxuraan ci ci youtube di ko fekk ci yaatal mbindum alxuraan ci facebook di nga ko fekk ci groupe whatsapp yu baree baree bari kon loolu yaatal xam-xam la te dafay des tamit kon daal loolu ñu ngi leen ciy sant bu baax yéen média bi ndax boo leen fi nekkutoon loolu du mën a am yéen a koy film yéen a koy enregistré di ko def lépp te loolu it yéen a ngi ci jàppalanteeg liggéeyub alxuraan kon noo ngi ñaan yàlla sama borom fépp fu média di yegg rek yàlla na leen sama borom defal tawféex ngeen yegg foofu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wal qalami wa ma